wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokk yi ñëwati nañ ci seen yóbbalu koor ngeen ci ànd seen mbokk seen xarit sëriñ Pape Ndiéguène mbokk yi xam ngeen ni ñuy woon ci tomb bu am solo muy ñàkk ormal julli ak di julli di ko fowee di ko ñàkk jox cëram te nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñuy jàngal nit ki nga xam ni dafa sàgganee julli nee nag ki nga xam ni sàgganee na julli am na fukki mbugal ak ñaar yu ko yàlla di waajal fukki mbugal ak ñaar yooyu nag am na ci yoo xam ni àdduna bii la ko yàlla di tege muy ñetti mbugal yoo xam ne ci àddina la ko yàlla di tege am na ci yeneen ñett yoo xam ni it yàlla nga ko koy teg ci buy bëgg a génn àddina maanaam ci jamono ji nga xam ni feebar na ba war a génn àddina am na ñett yoo xam ne foofu la ko yàlla di tege am na ci yeneen ñett yoo xam ni bu deewee ba dugg biir bàmmeel foofu la ko ko yàlla di tegee waaye it am na ci yeneen ñett yoo xam ni bu yowmal xiyaamee fa la ko ko yàlla di tegee mbokk yi yëpp dinañ ci ñëw incha allahu taala ci benn par benn waaye ñu njëkk ci yi nga xam ni mooy ñett ci àddina ci yàlla Muhammad ne nit ki bu fekkee dafa fooyee julli ba sàgganee ko mu ni mbugal mi ko yàlla di njëkka teg ci àjjana mu ni day yëkkati barke ci ay mbiram mu ni lu mu defati du amati barke allahu akbar yarfau llahu albaraka day yëkkati barke ci ay mbiram ba pare day xatal wërsëgam nga xam ni balaa am dara lu ne dina ko daj te lu mu am du toog ci loxoom day tasaaroo ba sax day mujj di jaaxle naan li ma amoon fan laa ko teg loolu ñàkk fonk julli daf koy waral mu ne ñaareel bi ci fonk julli yanziu minhu nuura saalihin yàlla day yëkkati leeru leeru bu sell boobu di ne ci doomu aadama nga xam ne ci ku ko seen ci la koy soppee mu ne du fekkee fonk ko julli yàlla day rocc ci yaw leer googu mooy waral tabaarakallaahu képp ku la gis du la mën a bëgg ci xolam loolu leer la boo xam ne dafay ne ci doomu aadama waaye ñàkk julli da koy yóbbu mu ne ñetteel bi yàlla day nekk def loo xam ne sa biir xol benn jullit du la jublu yakunu mabghudan fi qulubil mu'minin day def loo xam ne benn jullit du la bëgg ku la gis rek du la bëgg te loolu fa tabaarakallaahu ñàkk julli daf koy waral mbokk yi xoolal ñett yi mettil sa wërsëg bolu bala ngaa am dara lu ne di ko daj ba pare génn leer bu sell boobu sa kanam sa kanam beneen bi nag fa tabaarakallaahu mooy mu daal di def xolu jullit ñëpp kenn du la jublu mu ni ba tey du fekkee ni nag ñett yi nga xam ni booy bëgg a génn àdduna foofu la lay teg bu njëkk bi mooy yaqbidu ruuxuhu atashaana walaw shariba ma al allahu akbar nee na yàlla ci boppam bu ñuy rocc sa ruux ngay sukuraat dina fexe ba nga mar mar mu metti moo xam ni mu ni walaw shariba maa ul anhaar boo naanoon ndoxi géej yépp du tax nga màndi ci mar boobu te mbokk yi sukuraat metti na sukuraat jafe na sukuraat tiis na bu ca yàlla yokkee loolu nag loolu àdduna bu tukki la moo tax nag fooy julli ak ñàkk julli musiba googu moo ci nekk incha allah muhammad nee na képp koo xam da ngay fooy julli booy sukkuraat mar mu metti ngay deewee waaw te li gën a yéeme ci àddina nit ki sukkuraat iblis day taxaw ci wetam yor ab biteelu ndox naan la weddil yàlla weddil yàlla ma jox la ko moo tax bëgguñu bu nit ki di sukuraat nga nekk ci wetam nan ko waxal laa ilaha illallah bu ko wax loolu mukk toogal ci wetam rek di wax laa ilaha illallah ndax boobaa du yow rek lay waxal xam na dinañ ci gindiwaat ay mbir yu gën a yaatu mu ne wasaani yetu ñaareel bi ci ki bàyyi julli ci buy bëgg a génn àdduna yastaddu alayhi nazala ruuxahu allahu akbar yastaddu alayhi nadala ruuxuhu mu ni yàlla day wax malaaka bi ni ko bu ñuy root nañ ko metti yastaddu alayhi nadala ruuxuhu bu di génn day metti waaw sukuraat bu metti ngay sukuraat sukuraat bu metti ngay sukuraat waaw sukuraat ñaar la am na boo xam ne wan naaziaati arqan am na ci boo xam ne wan naashitaati naashtaan mbokk yi wan mooy sukuraat bi nga xam ni buy am dafa mel dañuy buddi sa ruu waaw waaw loolu nag wax lu dëgg dana ko waral jëw dana ko waral njaaloo dana ko waral lekk alalu jàmbur ak alalu jërim dana ko waral yooyu yëpp day mettil sukuraat ak wax ju bon ak wax lu sa yoon nekkul yooyu yëpp day mettil sukuraat waaye li ci gën a yéeme nag mooy mu fekkee da ñàkk fonk julli ak di foyee julli mu ni booy génn àdduna yàlla day wax malaaka bi mu ni nanga nga taral ruuga buy génn ca moom waaw mu ni nag waayaasu billaahi ñetteel ba nag mooy ñetteel ba nag mooy mu ni yàlla day rocc ci yow nag al mooy ngëm yàlla allahu akbar dem bay bëgg a dugg bàmmeel ngëm yàlla nga amoon lépp rocceeku te nga xam ne booy dem vidde ngay demee ci yàlla yàlla nañ ci yàlla musal mbokk yi ñu teg baaraam bi foofu incha allahu taala bu suba ñu yeggale yeneen ñett yi nga xam ne moo ne ci biir bàmmeel ak yeneen ñett yi nga xam ne mbokk yi mooy nekk it gannaaw biir bàmmeel mu yowmal xiyaam mbokk yi ñu fàttaliku ni ñaanu tey bi incha allahu taala mu ngi nekk ci yaa sattaaru mooy ñaan sutura yaa sattaaru 313 lañ koy def def ko adda yonent yàlla Muhammad waaye nag gannaaw faatiha waaw ñu ñaan yàlla yàlla suturaal ñu àddina ak suturaal ñu àllaaxira yal nañ ko yàlla defal ki ngeen lool seen yóbbal koor mooy seen mbokk seen xarit sëriñ Pape Ndiéguène wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa